képp koo xam ne topp na yoonam te yàlla di fi jëlee suuf si gannaaw loolu dina nuyu nuyu islam muy nuyu bu kenn si nuyoon muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di sant yàlla tabaraka wa taala mu ñu def jullit di sant borom bi subhanahu wa taala ولا سيدات محمد صلى الله عليه وسلم بسنت يا الله سبحانه وتعالى بام بفاي نك اي نتي وخمن سني يتي سني ينغتو سنه محمد صلى الله عليه واله وسلم اي صحابه كنيان بروم بي سبحانه وتعالى ني سخال نيو سخال ديب دو خمن ني دغو سي لولو نونو sax si bépp suñu ñoon taseeg borom bi subhanahu wa taala luñ bëgg a waxtaane mooy mbir moo xam ne mu ngi yitteel ñu bëri si jaam yi yitteel ñu bëri si jullit yi mooy feebar bi génn es ñu koy wax Ebola gis si suñu islam wala ñun suñu gis-gis يخلات لنج تجان دم نيم توتي سوي خلات نياخ نيني دل سبحانه وتعالى نجام برم سبحانه وتعالى ما يتحمل موجه أدنى يموجه الآخر bépp musiba boo xam ne ñu ngi koy jànkuwante si kaw suuf si la ko sos mooy suñu baakaar ñun doomi aadama yi borom bi subhanahu wa taala dafa wax si alquran ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kadir mu ne bépp musiba bu leen dal moo xam naqar la moo xam feebar la moo xam ñàkk la moo xam fitna la da ngeen xam ne seeni loxo ñoo ko jëf fa bi ma kasabat ay diikum lu ko sabab mooy seeni jëf yu bon seeni jëf yu ñaaw seeni bàkkaaw borom bi subhanahu wa taala si ngirmande wala si rahma bu mu am doomi aadama bi xewal bu muy si doomi aadama ak bëgg bu mu doomi aadama loolu tax du koy sas wala du koy mbugal baakaaram yépp yuñ def loolu tax borom bi subhanahu wa taala ne daf musal rek bon jafe-jafe yi ñuy jànkuwante si kaw suuf ndaw la jógee si suñu baakaar borom bi subhanahu wa taala di ñu ko mosal ñu mun a dellu si borom bi subhanahu wa taala kon feebar bii mi génn génne yónni ko si doomi aadama yi mu nekk Ebola nañu xam ne suñu baakaar a bëri suñu baakaar moo bëri da nga xam ne borom bi subhanahu wa taala bëgg nañoo tekk-tekk du ñu wax ne hey dellu leen si seen borom bi subhanahu wa taala jéggalu leen ko mi jéggal leen bàyyi leen def ay baakaar jublu leen si yàlla subhanahu wa taala lii tax mi yónnee ay fitna yi ak ay balaa yi ak ay feebar yi ak ay ñàkk yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy jànkuwanteeg suñ dundi àdduna baakaar nag foo ko fekk am na ay musiba yu muy indi dina ko indi si ay yaram ngir day yàq xel borom baakaar bu bëri du mën a def lu baax du mën a jóg dem si yàlla subhanahu wa taala suñ ne kaay leen dem si yàlla subhanahu wa taala dafay tayal waaye kaay leen jóg dem dafay sawar dafay sawar loolu tax ñu ne day yàq xel day yaram tamit baakaar dafay yàq yaram comme nu pasin di yàqee yaram yaa ko xaj ba nga xam ne du xalaat dara du baax lu bon rek la mooy xalaat baakaar dafa am ay musiba yu muy jur loo tax bépp xel war naa xalaat jëm si yàlla subhanahu wa taala di wàññi ay baakaaram ngir baakaar jigul kenn baakaar jigul kenn soo seetee suñu dënt yàlla noonu wala balaa ñun sax suñ baay aadama ak suñ yaay aadama la leen génne àjjana mooy baakaar baakaar moo tax ñu wàcc si kaw suuf fee sonn di feebar ñàkk di xiif di mar la ko waral mooy baakaar waaye ba noonu ñu ngi si biir àjjana duñ mar duñ xiif duñ rafet waaye baakaar moo tax suñ maam aadama ñu génne ko àjjana ba doomi aadama war na moom moytu bàkkaar ñu ne bàkkaar moo tax xawmu nuur yàlla xalak leen yàlla dafa xalak ñëpp ñoo xam ne nekkoon nañ si kaw suuf ne leen ña nga xam ne mooy ñoon yàlla ñu ngi doon jaamu yàlla topp yonent yàlla noonu alayhi salaatu wassalaam ñoom rek la yàlla bàyyi ci kaw suuf si bés bi mi xalak ñëpp kenn desul kon baakaar war nañ koy oytu ngir baakaar jigut ñu ñun doomi aadama yi waaye jigut rab yu nga xam ne sax ñu ngee dund ak ñun ngir baakaar su bëree su mbugal ñëwee rab yooyu tamit dinañ ànd ak ñun si mbugal bi ñu wax ne baakaar am na lu bëri lu muy xañ doomi aadama bi bokk na si lu muy xañ doomi aadama bi mooy xam-xam soo bëggee xam-xam sa kantuma xam diine xam-xami islaam dangay moytu di def baakaar ngir baakaar ndox la moo xam ne dafay fay leer gi borom bi subhanahu wa taala fas ko ay nit def si sa dënd bi leeri xam-xam ku bëgg sàkku xam-xam dangay oytu baakaar برم سبحانه هو تعالى من الرجل لن يلا يلا سبحانه هو تعالى من قمل لن بجان لن لن يودي بيس آية بي واتقوا الله ويعلمكم الله لكن تسولا نقول برم سبحانه هو تعالى يلا سبحانه هو تعالى فلن جانجل لو تبرم باكا لفي بر بفاته لم جان لا جان يغخم لمقل من القرآن ñu jaxase ko ay baakaar lañu fàtte lu bëree bëri bëri bëri si aaya yañ mokkaloon ngir lan leeri xam-xam ak lëndëmi baakaar bu ñoo tasee si benn place imma leer des lëndëmi baakaar dem wala lëndëmi baakaar des leeri xam-xam dem loolu imaam Maalik rahimahullah mos naa wax imaam Shafii rahimahullah mu ne ko man de damay séddu ne yàlla subhanahu wa taala daf la naral jàmm dafa jël leer boo xam ne jógee si moom mi leeri xam-xam bi sas sa dënd mu ne ngeen la mag la ñaan bul nangu leer boobu feeñ ngir lan baakaar yoo xam ne yaa ngi koy jànkuwante mooy ne ay tur def ay baakaar balaa borom bi subhanahu wa taala di jël leeram googu kon lañ see déggee mooy ne baakaaw day jël xam-xam fay ko du nekkati si dënn bi sa dënn bi ñu ko yàlla yàlla musal si ko bokk na si baakaar lu ne def doomi aadama daf koy def ku ñàkk wasagam du yaatu suñ ne wasagam du yaatu nag mooy du am barke ngir borom baakaar du am barke yàlla subhanahu wa taala day rocc barkeem si alalam mun naa rocc barkeem si njabootam lu mel ni jabaram du am barke du jur lu baax ngir lan baakaar yamee jànkuwante wala mi jur waaye jur lam jur du njëriñe du nekk loo xam ne dina njëriñ nit ñi du njëriñ boppam du njëriñ baayam du njëriñ réewam waaye day lor réew baakaar dafay tax nit ki ñàkk baate man ngay am alal ju bëri waaye yàlla subhanahu wa taala du si def barke bi nekk alal joo xam ne du la njëriñ du njëriñ sa doom du njëriñ sa kenn du njëriñ sa dëkk bi nekk alal joo xam ne musiba rek lay nekk si sa kaw ngir lan borom bi subhanahu wa taala dafa na mu barke ba kon baakaar day tax nit ki barke jénn si moom du amati barke te ñun ñëpp barke la ut képp ko xam ne yàlla xañ na la barke nga xam ne xañ na la lu rëy mooy ne doo barke aduna doo barke àllaaxira te baakaar foo ko fekk baakaar a koy toftal ki soo defee baakaar tey ëllëg di nga def beneen baakaar ngir la baakaar dafay jur baakaar waaye soo defee lu baax jaamu borom bi subhanahu wa taala julli googu nga defal borom bi dafay jur beneen julli or boobu nga defal borom bi dafay jur beneen or lu baax lu nga defal borom bi subhanahu wa taala dafay jur beneen jëf ju rafet waaye lu bon tamit noonu la soo defee lu bon dafay jur beneen lu bon loolu tax nit ki su duggee si baakaar su ko yàlla dimbalewu du mos du génn si baakaar ba ba mel taseeg borom bi subhanahu wa taala lii rek doy nañu ñun doomi aadama ñu aytu lu ñu wax baakaar ngir baakaar lu muy jur mooy baakaar ngay gën di jegeñ baakaar di def baakaar di def lu bon di sori borom bi subhanahu wa taala da nga egg place boo xam ne yow xamatoo def lu baax waaye lu ñaaw rek nga mën di def daanañ yàlla musal si bokk na si baakaar lu dee def doomi aadama mooy daf koy lor borom baakaar bi dina lor keneen ka nga xam ne tamit deful baakaar bi sax dina lor si sa baakaar waaye rab ربي يسوي أبجله نبدنا اللورس باكر بي دوم آدم دي دف تنيم دفن أي باكر أمون أي باكر لذا أبو هريرة رضي الله عنه إن, إن الحيارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم من بيتش بيني وحيار دينا دي ستاقم مو إذا كرم فبدك سنيقم ngir ngir bàkkaar bi domi aadama def yàlla wàcc mbugal subhanahu wa taala picc mi deful dara mi loru si bàkkaar bi doomi aadama def yàlla subhanahu wa taala wàcce mbugalam waaye ibnu abbas nettal ne sant bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xeer bi ñuy wax aswad soo demee kaaba wala nga seet télé bi nit ñi xeer bi ñuy fóon di ko laal di ko fóon wax xajaru aswad denc bi sallallahu alayhi wa wane ne wane ne ne dafa jóge àjjana àjjana la wàcce mu ngi weex tal soow gënul koo weex ñun ñëpp xam nañ ne soow lu weex la soo gisee lu ñuul si soo xamal ne bokkul si xeer bi ñu wax hajaru aswad moo gënoon a weex soow mi ñuy naan la ko ñuulal mooy doomi aadama seeni jëf yu bon seeni baakaar moo tax xeer wi nekk xajaral aswad mi ñuul kukku dara gën koo ñuul fuñ toll di la ko ñuulal mooy doomi aadama seen i bàkkaar loolu tax wax mujahid rahimahullah mu ne jur gii ñu amee ñu nekk suñu ron xar yeeg béy yeeg nag yi su taw bi ñëwutee waaw suuf si wow waaw yàlla subhanahu wa taala tiye ay ndoxam da nga gis bahaima yooyu di wax xar yi dinañ wax fas yi di wax لن يوه موي هذا بشؤم معصية ابن آدم من الليد يالا مغلين يكو جنا خمنا توبي جول جان جاخي سخون نياخي سخون أمل لك لقورا موي باكار دومي آدم لو عكرمة رحمه الله من الجري نو أمي غاتي نو أمي أي سخيدي دوخ سيكو سوف ñoom ñëpp dañoo rëbb doomi aadama yu nga xam ne dañoo mooy borom bi subhanahu wa taala su taw amutee amuñ luñ lekk suuf si wow lu ñoo wax munina al qadr bi dunubi bani aadam yàlla subhanahu wa taala xañ nañu ndox lu tax ni xañ ñu ko mooy doomi aadama yi seen i baakaar te ñun ñëpp xam nañ ne baakaar bëri na lool bëri na lool si kaw suuf si bokk na si baakaar bu ngay def nit ki mooy daf koy suufee daf koy suufee yàlla xeeb ko jaam yi xeeb ko du nekk koo xam ne am na bayra am na daraja si pali julit loolu képp koo xam ne seetlu nga ko di ko gis loo tax borom bi subhanahu wa taala mu la ñu ñoo wax al izza mooy kowe ak màgg ak am daraja borom bi subhanahu wa taala moo ko képp koo xam ne yaa koy ut nan ko utee si borom bi subhanahu wa taala imaam ibnul qayim rahimahullah ba muy tafsir aaya bii mu ne yàlla lam na mu si aaya bi mooy képp goo xam ne bëgg nga daraja bëgg nga teraanga nan ko utee si jaamu yàlla subhanahu wa taala soo jaamoo borom bi subhanahu wa taala borom suuf si borom asamaan yàlla subhanahu wa taala dina la teral waaye képp koo xam ne mooy nga ko doo nangoo tegu si ndigalam yaa ngi koy mooy bés bu nekk yow doo nangoo julli yow doo nangoo oytu yàlla tere yaa ngee naan sàngara yaa ngee njaalo yaa ngee def lu bon lépp lu bon yaa ngi koy def ci kaw xamal ne yàlla dina la toroxal aduna ak àllaaxira bokk na ci bàkkaar bu nee def moy xewal bu ñu yàlla xewalal yàlla dina ko ekati ko yóbbu ko musiba utu ko yàlla ñu yàlla musal doo tax ali ibn abi talib mu ne ma nazala balaun illa bi ولا رفع الا بتوبه من بيب مبغال ما خمنا يالا واتينا بيب نات بو خمنا يالا واتينا واو فيبا نياك اخير اغيري فتنا قران تدرج يوب كو ولا موي دومي ادم سني باكا ميو بري دوتا من ما نزل بلاء الا بذنب اما بيب فتنا بو خمنا دينا واتي سي كوزو ni rek la ko sabab rek moy bakari ولا رفع إلا بتوبة يا الله تكتموك نرجو دلوس يا الله سكو سرنام نيان كبرم سبحانه وتعالى من جيب بسنباها هنا يا الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لب لو خمن دوتنا لن سي أي مصيبة سي أي بلا سي أي فتنة أمن فبما كسبت أيديكم لا سبب موي سيني باكا مو بسبب yàlla mu ne wa yaafu an kathir ah a noonu tamit daf ñuy jéggal lu bëri suñu baakaar la mu bëri bëri yàlla du ñoo gën yëpp wala du ñoo nattoo yëpp daf ñoo mosal pour ñu dellu si borom bi subhanahu wa taala kon wax ne feebar bii bi jéem ñu ko wax Ibola mbugal la moo xam ne borom bi subhanahu wa taala mën naa wax ne yeneen feebar daf ko yónnee comme ni mu yónnee leen mbugal yi pour ñu mun a eewu dellu si borom bi subhanahu wa taala aduna bi yëpp suñ dellu woon si yàlla subhanahu wa taala bonoon dinañ am jàmmi aduna ñu am jàmmi àlla walaw amana ahlul qura la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard fekkee waa dëkk wi gëmoon nañ yàlla ñu ragal yàlla subhanahu wa taala borom bi mu ne naa wàcce barke bu jógee si asamaan dinaa bunti ubbi bunti suuf si barke suuf si tamit génn da nga ne barke mooy wër adduna si yëpp waaye bi adduna bi yëpp delloo gannaaw jox téere yàlla bi gannaaw seetaan ay dëkk yoo xam ne ñu ngi àtte sharia ñu ngi àtte kitaab allah shariat allah gis ne ay dëkk yu néew la du romb ñaar ñett wala benn sax du dëkk yëpp jox sharia gannaaw yàlla subhanahu wa taala moom moom suufa moom mi sàmp ñu si kaw suuf si wàcce ñu si kaw suuf si bi wàcce téere mu ne doxee leen si téere bi doomi aadama yëpp dëndu téere bi mu jox ko gannaaw te ñun ñu ngi yaakaar ne war nañoo am jàmm ñu ngi ne war nañoo am barke ñu ngi yaakaar ne war nañoo am wasat te lii yëpp si loxo borom bi subhanahu wa taala la nekk nekkul si loxo kenn te moom moo koy joxe léegi mën nañu jaar leen fii ñu mooy ko naka la ñoo amee jàmm dina ma jaaxal lool banmange o aduna mi yeru enen len dellusi alquran ñu dellusi sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu bëggee yàlla teggi feebar yi suñu bëggee yàlla teggi nattu yi suñu bëggee yàlla jeexal problème yi suñu bëggee yàlla jeexal fitna yu nekk si biir aduna bi foog ñu dellu si borom bi subhanahu wa taala lam ñu digal si alquran ñu taxawee ko lam ñu tere si alquran ñu tere ko lam ñu digal si sunna ñu def ko lam ñu tere si sunna ñu ba ko ñu woodu si gannaaw sang bi sallallahu alayhi wa sallam su ko aduna bi yëpp defoon ba noonu dina jeex mos naa koy dégg ñu ne benn yéeféer boo xam ne gëmut yàlla subhanahu wa taala bindakat la ñu koy wax mufakkir ah scientiste lam wax mooy ne problème bii nekk si biir aduna bi yonent bu ñoo wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa jii ñuy wax muhammad rasulul islam mu ne su yéen noon suñu biir ñu jox ko kaasi tii jox ko doguti mburu ba noonu dina jeexal problème bu nekk ci kaw suuf balaa ngay jeexal kaasi tii bi am doguti mburu kii moo wax dëgg adduna bi yëpp dañ waroon a dégg wax ci ñu bootu ci gannaaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam ñu digal ñu def ko lam ñu tere ñu ba ko ba noonu dinañ jeex wala dinañ jeexal ay fitna yi ñuy jànkuwanteeg moom kon lu maa digal suma bopp mooy nañ dellu si borom bi subhanahu wa taala sakkantuma jullit yi jullit yi nañu seetlu suñu bopp fu njaalo amee ñoo ko fa def fu naan sàngara amee ñoo ko fa naan fu fitna amee ñoo ko fa ikkati lépp lu bon loo xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala tere nañ ko si kaw suuf jullit yi ñu ngi jànkuwante ak moom seetal riba bi num tasaaro amul réew moo xam ne mucc na si riba ngir bank yi yëpp ñu si ëpp way mun na wax yëpp riba la ñu liggéey te borom bi subhanahu wa taala daf ñu tere riba bon so leen bëggé ñu mucc at tawbatu ila allah fokk ñu dellu ci borom bi subhanahu wa taala ar-ruju'u ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu رسول wasallam صلى ci téré وسلم دالو ستير alquran بمن ci sunnati muhammad sallallahu صلى wasallam mom rek moy tax ñu موتي bon maa ngi dénk suma bopp di dénk julli di di dénk képp koo xam ne yaa ngi dëgg baat bi dina dénk yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi fa may tëjee suma wax jox nañu ay ñaan yoo xam ne daf ñuy musal ci ay musiba te feebar bi ñuy wax bi wala musiba la dëkk yam nekk maa ngi ñaan yàlla yal na ko fa yàlla saafara dëkk yu mu eggangul maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na leen yàlla musal ba mu fa mos ci egg waaye maa ngi dénk suma bopp di dénk jullit yëpp bu ñu fàtte ñaan ya nga xam ne sang bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu ko ñaan yooyu daf ñooy musal si ay balaa daf ñooy musal si ay fitna bokk na si ñaan yooyu sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne soo gisee koo xam ne yàlla daf ko natt teg ko mbir moo xam ne bëgguloo yàlla teg la ko bindee ko bindee boo xam ne bëgguloo yàlla bindee la ko لنا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا يجب صلى الله عليه وسلم كيف وفرنا يا الله نتو نكو نجيس يا الله منك نتو واتشف أي بلا نجان يانجي برم سبحانه وتعالى دينا لمسل سبلا بوكو دينا الله kon képp koo xam ne dégg nga feebar bii wala nga gis koo xam ne am na feebar bi ñaanal feebar ñaanal ñaan bii sang bi sallallahu alayhi الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا maa ngi ñaan réew yi nga xam ne feebar bi egguñ fa nañ jàpp sunna bi ñaan ko borom bi subhanahu wa taala yàlla mun la ne kale ba feebar bi du leen laa am na yeneen ñaar yu bëri bëri yoo xam ne waxtu wi duñu ko may waaye maa ngi ñaax nit ñi nañu dellu si sunna bi jàngal ñu nañoo musloo si borom bi subhanahu wa taala bokk na si ñaan بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تنبي صلى الله عليه وسلم نكيب بو خامن بول سيتي نكو غنيان نيان بي نيتي نيو مو ني بس بوبو بن نور دولا لا ام بن مصيبه بو خامن دينا دال سي سكو بون نانيو نيان نيان بي غير يالا مو نيو موسى سي فيبر بي ني واخ ايبولا موسى ني سي فيمن فيبر ييغا خامن مصيبه لا بو خامن يالا سبحانه وتعالى مكواتي جامي لتحم واجك موسى نباكا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبول ستين نوح كون يتيون سلي الله باخي جنت بسوم لفكك نوح كون يتيون سنك بسول الله عليه وسلم بلا بدي سدال درد لمن الله ودي أب أيدين يان وخمنا سنك بسول الله عليه وسلم إدي من يكو مانكو دينك سمبوه ديكو دينك بكو جلد يمونا مجزي فيبر بيه يانا نيالا موسل موسل سوني خير موسل بيت مجلد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين